Reo mi bañ do dootuñu nangu kenn jaay nu Reo mi bañ naa déet réew mi bañ do déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam kippe média ne kenn du jalo lan lañ bëgg nañ ñu ko man affaire parti tënkuma bu dee pastef ku wax li nga xalaat ñu dàq la ma dàq tey dama gëm nañu respecter nit ñi nañu tok ci table ñox wax Macky Sall moomul rew mi mënu fe forcer nit ñi luddul deug dëgg. te ku la wax li Macky Sall dafi wut 3e mandat moy fenkat bi gëna a ci Sénégal man waxtaan nak ak Macky Sall Macky Sall waxutul waxi troisième mandat nuñ ko accompagner mu gën réew mi dem ci jamm la bëgg. lolu nak képp ko xamni ni yow intérêt Sénégal mo la tax di wax da nga koo war a xam nga xam nga xam nga xam nga réew mi lu tax mu naqadee waxtaane moy mhm. euh buñu nee dañuy woote jàmm. Mhm. té mu am ño xamante dañu taxaw ne ñun woote jàmm boobu duñ ca dem ñooñu bëgguñ jàmm manam kep ku baña dem ci concertation wala dialogue. justement xam nga. ziar kontaanee jox cër mbok aduna ziar kontaanee jox cër mbok internet c'est le bon TV kon naa bokum rewmi ci chaîne chaîne la chaîne de la vérité seen chronique comme niñ len kay defalé sa saa ci actualité rewmi waye waaye balaa sori rek dañuy yox bak bi dooley jën ndox la dooley saxar ray la mais dooley site internet chaîne YouTube abonnement la aimer commentaire et partage. xamna ni nak nag ngi ci mais gën len ci nek surtout dee len aimer vidéo yi c'est très important donc boo seetaanee ba pare nga partager joxe sa xalaat ci commentaire yi di béggee nag ñëpp ñuy commentaire maa ngi leen di béggee bu baax di teg nuyoo bi sama frère Bouna Sarr l'international borom je réclame 1 million d'abonnés pour C'est le bon TV de Kona le véridique ñeneen ñëpp nag ñu ngi sàkku ma leen di tudd maa ngi leen di gis ci commentaire yi yéen ñëpp incha allah dinañ commencé ay live <clears throat> yoo xam ne dañ koy jagleel ñun ak yéen ñuy waxtaan bu boobaa dinañ am temps wu euh, tout le wala tudd ñu ci chaque jour nous gën a nous am questions aussi nous nous poser nous allons ci live une incha de du dara live une heure de temps ou cinquante minutes pour partager avec vous di actualité mais vidéo yi xam nga rek dañ donc <clears throat> comme nous introduction vidéo est par rapport fiñu tollu ci euh, dialogue wala bok Tande béer bi Macky Sall di wote donc ma gis nag <coughs> euh, divergence yi ci am te man pour man waron na mëna ñak parce que euh dialogue bi fi mësa am yépp xeyna na laajoon na xeyna na ñi war nañu dem mais bi dafa leer ni ay tiaxan la dafa leer ni ay folo dafa leer ni ay ay ay ay li du dul sax manam yëfu yabaté la kon man japp na ni jaru won sax kenn di taxaw di jéem a dëggalal Macky Sall caaxaanam yi mu nekk surtout nag koo xam ne dañ koy wax mu bokk Pastef ñu naan euh, Imam Dramé la je pense ma koy jaajëfal bu baax ndax vraiment mënuma contester loyauté wala taxawaayam bi mu am par rapport ak patriotisme ak Pastef bi mu bokk wala modab mais nag junte bu amee comme man duma partisan ñun dañuy analyser des faits lépp lu wàcc ci réew mi dañ ciy waxtaan joxe ci suñu xalaat que ça soit mu neex wala mu naqari كوي اناليز اي كليفة دين يو مك كليفة دين مام صح كليفة دين لا مي اي خليف جنرو كوي اناليز سين يو دي اناليز سين دخلين كنم تخلون جاي وح كون من دوما بارتيزان مانام نكول دما بوك في باستيف لا بوكو موتا بوغوما بوكو بارتي باسكو دما بوغ غيس دغ بي فومو نيك ما اندك مام باستيف مو نيك تي دغ سين ليدر لا نيي توغ مو نيك سينيغالي ني دون اي سينيغالي ني لين دي توغ ما دون جين نيك سينيغال غيس ني ني ньо نيك تي دغ njit bi mo bax pour senegal muy ousmane sonko ak ñi andal ñu leen di dolel ba fu mu yam neex mais ça ne veut pas dire que nak dañoo nekk ci rew mi di par parlo mam abdul aziz daan na wax nan far ta ñak ku ne amna fu mu far waye neng nañ meytu par parlo man nak passef la far ñom lay jappalé ba géej fer fu ñu pikiroo ma naan fay dom donte nak amna droit nek passifien nek patriote te duma adhérer ci parti waye bo xasse ba adhérer ci parti nak Imam Dramé bokk ci mouvement ñu nan ko modab da ngay tënku ci lañuy dogal surtout ma nga am fa dombal tànk je pense que tu es le secrétaire général ou pas kon cër bi nga am fofu taxna na yow waruloo génn di waxe sa bakkan surtout ma nak situation yu toll ni parce que tu parles au nom de Pastef tu agis au nom de Pastef waaye tu agis au au nom de modab ak bépp taxaway boy am da fay affecter kuréel gi kon nak gënuma la ko xam en tant que kilifa kon nak mënoo génn nekk à contre-pied ak waa Pastef nekk à contre-pied ak modab bi nga bokk parce que seen communiqué bi wane na ko yow tu mérites des sanctions par rapport ak sortie bi nga def parce que sortie bi moom vraiment c'est tellement négatif parce que tu as da nga sax insulter nit ñi maanaam yow li ngay bañ yow loolu nga def nit ñi mooy yow tu prônes le dialogue yow dialogue nga bëgg a dem mais tu insultes les gens yi nga xam ne bëgguñoo dem dem ba ni képp kuy responsable da ngay dem dialogue kon irresponsable yi ñoo ne de dialogue wuñu kon tu insultes les gens je pense que nag euh, li nga gis ba ne da ngay dialogue ji nit ñi gis nañ lu ko raw ba ne dialogue ji wuñu te buñ tegandoo suñuy argument ci table bi yow yaay daanu kon nak on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire nit du toog ci kaw der di jëw yàpp encore une fois Macky Sall bu ngeen nangoo mu nax leen bu leen imposer nit ñi Macky Sall nax leen wala boog bu ngeen bëggee ànd ci ay caaxaanu Macky Sall bu leen imposer nit ñi ñu ànd ci caaxaanu Macky Sall te it dialogue bi du pour intérêt Sénégal loolu weddi ko ba mu set imam weddi naa ko ba mu set lan la ñu bëgg nga dem nga sax ba laaj ñu lan la ñu bëgg imam Dramé li ñu bëgg mooy Macky Sall jàpp suñuy datu élection ñun loolu la ñu bëgg li ñu bëgg mettiwul li ñu bëgg jafewul li ñu bëgg it nekkul lu ñu moomul ça nous revient de droit mooy que ñu jàppal ñu suñuy datu élection ginnaaw bi ñu yàqee suñuy élection ginnaaw bi ñu ñu tooñee ginnaaw bi ñu reyee ñeenti doomu Sénégal ci ay caaxaanu Macky Sall li ñu bëgg mooy Macky Sall jàppal ñu suñuy datu élection je pense que laaj nga ñu loolu man nag li ma jaaxal comment tu peux l'avocat de Macky Sall à ce point parce que man gisatuma Imam Dramé kan laa gis kuy défendre Macky Sall man loolu laa gis mën na am nag ma juum te tamit jàppal naa la ngant jàpp naa ni da ngaa ci piège yu Macky parce que man mënuma xëy xëy rek benn nit mu def benn erreur peut ma teg ni dañ dafa il est un vendu wala non man agiruma noonu parce que yére bu ma sol jotuma du ko solal sama nawle waaye nag képp ku wax ci penc bi lu waxuwul dinañ la tontu koo mën a doon ak foo mën a bokk par parloowuñu dinañ la tontu ci yar ak ci teggin parce que bu fekkee ni li nga wax man ndax ma concerné concerné bép sénégalais parce que sénégalais yëpp nga wax ñi ku demul ci dialogue bi irresponsable nga loolu nga wax ba paré nga interpeller ñu encore une fois lan lañu bëgg li ñu bëgg moy Macky jàpp suñu date élection c'est simple c'est limpide non la ko déggé it Pape Ndiaye bu wal moom momit taxaw naan képp ku bëgg jamm manam ku bëgg réew mi da nga wara dem dialogue koku tamit daf ñoo interpeller ndax 24 la kon képp ku demul dialogue bugguloo réew mi au contraire ñi dem dialogue ak Macky Sall ñoo bëggul réew mi te je vais le dinaa ko expliquer ba mu leer insolence beeg nag arrogance bi imam kenn xameewu la ko je pense que nag soo bëggee layal lu layewul il faut nga insolent dem nga sax ba naan passef lan lañ bëgg ko wax dëgg ñu dàq la nañu ma dàq passef meñul noonu vraiment nag yow mi bokk passef ñun ñu bokkul passef ñoo mën xam passef meluñu noonu maanaam ñoo nekkul membre de droit ah nekkuñu membre de droit maanaam jënduñu carte bokkuñu ci benn kuréelu Pastef bokkuñ ci parti bi ñun ñoo xam ni Pastef doxewul noonu asuma ak yow mi bokk ca biir. kon nag ñëpp a waroon toog naan bu fekkee ni ku wax dëgg Pastef ñu dàq la nañ ma dàq ñëpp a ko waroon wax sax yow kenn du la dàq. kenn du la dàq mais kuréel dafa am nu muy doxalee mënoo bokk ci kuréel am fa domba tànk bu mag nekk fa responsable ñu jaar nii nga jaar nii génn di ko affirmer yow ya war a sa taxaway parce que démocratie moy lan moy que même bo andul ci ben mbir su mbolo mi ande nga plié wu ci décision mbolo mi lolou moy deug en tant que kilifa nak ne nga kilifa diine nga budé da ngay dem en tant que kilifa diine mais demal nga jël sa responsabilité personnelle taxaw ne man kat kurel gi ma demu ñu mais man en tant que kilifa diine représentant nangam damay dem wuy ji Macky Sall à ma propre décision lolou kenn man japp na ni kenn dula ci wax dara mais bëgg imposer les sénégalais imposer leen idée wu Macky Sall imposer leen idée wu dialogue te tegaloo ci table bi benn argument lu dañuy waxtaanee réew mi lan la ñuy waxtaanee ci réew mi ba pare ci fin bi dégg naa la nga ni Macky Sall dañ ko war a jàppale gunge ko maanaam comme sax mel ni ko garanti pour mu dem ci jàmm mais kon kay waxtaanee wuñu réew mi Macky lañ bëgg a waxtaanee ay problème mu interne ak ay émotion wu Macky Sall ngeen bëgg ñu waxtaanee ko léegi ngeen te ngeen jël suñuy élection jël ko def teg ko en otage li Ousmane Sonko naan du ma nangu ko teg pistolet sur la table suñuy datu élection ngeen jël teg ko mu nek genre prétexte genre otage genre euh, liñ naan chantage pour lan pour ñu waxtaanee Macky Sall ak mais lolu la kon nak encore une fois ne sa il faut il ne faut pas se moquer des sénégalais il faut respecter les sénégalais imam mëno liggéey li nga liggéey ba heure bi Macky Sall mu wul dara mi nga xamné ay mbiram jeex diko di passé fit kenn mënu len caricaturer ay ko buma waxi wax deug non passé am amu Macky Sall mi ngay défendre kay mo am képp ku wax lu andul lu mu bëgg mu dakk la dem nga banan sax képp ku wax ni Macky Sall troisième mandat mo nek ci xelam waxuloo deug ak nangam nangam mais waxu mais lolu ñun ñu lolu nga wax ñuko parce que yow euh, Macky Sall yow passé nga bokku yow information yooyu ñun xaaruñu nga jox ñuko parce que ñun ñu ngi yor suñuy bëdd di xool suñuy nopp di gis xam Macky Sall ak timi posé kon nak encore une fois ñun soxla wuñu nga ñëw duñu wax kat moy Macky Sall Macky Sall nekk na fi pendant 20 et quelques années nekk na fi ay ministre avant mu yor réew mi yor réew mi 12 ans di def di wax ñuy gis kon c'est pas à toi di ñu wax kan moy Macky Sall ay man tok na ak Macky Sall wax na ma li Macky Sall ñaata yoon lañ fi wax mu deñ Macky Sall ba laajal Khalifa Sall mi toog ak moom barki Demba Ndiaye nee na dematul toog ak moom kon toog ak Macky Sall du succès ndam naan ñëw naa ñun man toog naa ak Macky nee na man mel ni mel ni kàddu Macky Sall maanaam dafa dafa am garantie quoi kàddu Macky Sall Idriss Seck nee na moo raw boo ci jàppandikoo daanu Idriss Seck. vidéo ci internet bi kàddu Macky Sall Imam Dramé moom nga ñuy bëgg a gëmloo naan ñu Macky Sall naa nee na ma nangam mais arrêté

ne dina sàmmoon tey yoon dina sàmmoon dina imposer wala boog dina fexe ba ñëpp sàmmonte ak yoon mais décision bii mu jël barki Dembo njaay mais loolu lan lañ ko mën a comprender ci senegal léegi nag ñu war a taxaw nekk benn say wax Macky Sall nañu jàppal datu élection mu toog naan ñu ñëw leen ñi yow mais ay sëriñu daara ay xawma kilifa diine lay woo les forces vives ah spolié candidat spolié les candidats 19 ñu waxtaan xol mais lolu ban Sénégal lañu ñuy et puis bu len jël Sénégal bëgg ko fowé Sénégal réewu droit la du réewu dialogue Sénégal c'est un pays de droit c'est un pays de loi te lepp luñu lu loi bi prévoir ba wax ko mais lolu bo ci waxtané moy ñi ne yow da nga nangu ñu salfaañe droit motax tax ñu ne ñu ne demuñu di waxtané lo xamné loi bi da ko prévoir ba wax ko Macky Sall bañ ak moom ñu dem di tok di waxtaan ak mom Macky Sall c'est un hors la loi képp ku dem tok di waxtaan ak Macky Sall tu es un hors la loi comme lui moy que Macky Sall yoon bi yoon bi dafa jaar ni ñepp xam li moy yoon bi mu ne man defuma ko da ngay di ñew ñu tok ñu waxtaanee leneen leneen lam loolu ku ko nangu rek moy nangu nga waxtaan ëpp doole suñuy loi réew te vraiment musuma ñu Sénégal c'est un pays de Le Sénégal c'est un pays de droit la droit bi moy taxaw ba sommes ñu wax la justice la vérité Le pardon pas nga ñew buñ dëgg justice Madame, ku nekk ñu xamné dëgg am akam. waxtaan day yom qui ki togn nangu ni ki ñu solution mooy ginnaaw bi ñu tegee yoon te dëgg ba pare waaye bàyyi fële yoon bàyyi fële dëgg naan kaay leen ñu waxtaan lan la ñuy waxtaan kon loolu moo tax Macky Sall wuy ji ko mooy danger bi ñàkk koo wuy ji mooy nekk ci dëgg kon képp ku bëgg a taxaw bëgg a nit ñi jaro mais yow yaa bëgg a jaxase Sénégal yow yaa bëggul Sénégal parce que Macky Sall wax na terme de référence mooy que dafa bëgg a toog moom ci boppam mi jaxase carte gi woo leen ngeen di xuloo seen biir ñi naan d'accord naa ñi naan d'accorduma te moom moo jaxase carte gi et puis Macky Sall mooy kan moom mandat am jeex na léegi bu ñu dialogué ba teg ay sart le 2 avril ñëw na ba pare léegi kan mooy piloté résultat bi génnee si dialogue bi maanaam c'est c'est insensé sa dialogue laa kon nag amul kenn ku war a taxaw. mais da ngay dem ci dialogue bi nit ñi noppi ci loolu bàyyi la nga bëgg imposer nit ñi bay xas nit ñi naan ku demul irresponsable nga ku demul bugguloo sénégal yéen pour man ñiy dem dialogue ñoo buggul sénégal pour man ñiy dem dialogue ñoo buggul réew mi Macky Sall kuy rëbb du yor joololi li muy def xam na ko imam Dramé kuy rëbb du yor joololi Macky Sall xam na lim bëgg xam na li ko koy may te seen genre yi nag ñoo ko koy yombalal mooy que amul lenn lu dialogue bi mën a génne luy amal njariñ Sénégal wax nga ko peut-être luy amal njariñ Macky Sall luy gën a jalfaañe carte gi léegi nag li am solo mooy képp kuy nutu dëgg mooy nga jàkkaarloo Macky Sall ne ko na nga defoon ba fomm élection yi soo ko defaatee élection yi am mooy dangaa xëy jël sa décision bopp taxaw jàkkaarloog Sénégalais yi ne fomm naa ko jëlaatal sa décision bopp nga jàkkaarloog Sénégalais yi nga jàppaleen dat mais lii c'est simple mais jarul waxtaan jarul toog jarul façon waxtaan la léegi bu ñu ñëwee kenn d'accordul nag ñu demaat ci constitution kon balaa jag duñ def li constitution bi wax mu jeex kon encore une faa caaxaan baaxul réew kenn du ko yoree caaxaan. kon na gars yi waxtaan waa ngi noonu gën a partagé gën a abonné jaa ngeen jëf.